yàlla suñu boroom li mu defal yonent bi bokk na ci maamam yépp kenn ku ci nekk mën nga fanaan ci mbiram ba bërset kenn ku ci nekk waaye terewul it gis nga fi mu ko jaarale ci wàllu fitna ci wàllu lu nekk te it mag ñépp dañ ci summil chapeau imam Bousiri ndax ñoom ñépp jàpp nañ ni burdatul madix du kese kese ruuxul qudus dugg na ci li ciy bëréw mooy jéem na ko defaat ba tàyyi mënu ko ñi ci desit roy nañ ko ci ba tàyyi kenn mënu ko wante ni ñu ko soppe ndax yonent bi noonu la ko yenn jullit bañe ndax yonent bi lu mu dajul ci kaw suuf amul moom imaam Busiri xam nga amoon na ñaari jàngoro benn jàngoro bi xamul sax lu mu doon ci biir mettit walla wéye burdatul madiha yàlla saafara ko loolu am na ñu ci bind téere saaga ko te jullit li euh, cheikh sama turandoo dafa yërëm Buusiri ba moo tax mu def irshaadaat dafa ko ñaanal ba dangaa jaaxle ndax ba léegi bërki démb laa jot téere bu ñu def ci moom saaga ko te ay état ñooy génne xaalis di ko neexle pour loolu lu tax parce ca cosaan seen famille daf daan wujjante ak famille yu yonent bi te li imam Busiri wax yonent bi nag ëpp na ñu ni nag duñ ko bàyyi ba ba àddunay tukki ku des ci ñoom rekk loo am ci alal ko joxe pour ñu bind saaga bu sëri Maodo loolu boppam nag muy côté spirituel te am naa lu damu mais mais meer bi yëpp sax te mu ëpp doole ci côté baati te mu ëpp doole ci côté baati ndax lumière am Cheikh El Hadji Malick laa wax bi mu ñëwee jël góotu imaamul Busiri imaamul Busiri bi Muhammadul Busiri nit ku yàlla la dund yoo xam ni benn bi rey bu mën na ko ko garanti benn bi rey bu du ko ko garanti lu dul ci dëgër ak ci place yu des ndax place bi du limité Mouhamadou Bouseyni ruuxam rey bu dañ ko garanti ndax nit yàlla li mu bind ci yàlla ci bi yëpp firndeel waaye rey bu garanti wul woon bindam dama bëgg leeral tuuti garanti bindam lay ko garanti wu xam nit yàlla yoo xam ne ay day garanti sen doogu garanti sen bind garanti seen deret garanti seen njaboot ba garanti seen sët ba garanti seen sët sëriñ Babacar si exception la ci ñoom noonu la ko Mouhamadou Bouseyri ñëw ak bind ko gis nga am yéen ci leen borom téere jàngat ba lu ne waaye te xoolu góor du ak tàgg yi ci tàgg yàlla ci ak yéen da ca wax yu Muhammadul Busiri ak ci yonent ñu ngi nekkul ci rey ñu ngi ci saar loolu ëpp naa def laaj Cheikh Tijaan nan laay def ba loolu nekk ci xay Cheikh ni ko boo ko jàngee mu nekk ci xay ndax ak ab la. weer feeñ mu teg téereem jël téere Mamadou Busiri jàng. am na ca xay bu bind bind lu ko jamal yoon boo demee signature Cheikh Al Hadj Malick moo ci nekk. tey si laaj Malick. mu yor fes fu de. déglu dégg bi. ay question la mu ngi di posé. xam nga ku ma leer. dama dégg benn bés benn mbokk di waxtaan ko ni waaw ñun de sunu kilifa moom la mu bind doy na sëkk ba bu weer bi feeñee moom la ñuy jàll jëli wu ñu téere jàmbur. xamul ne xaw. nga seetal fi mu ko jàll. nga xamul du ko waral. li tax Cheikh El Hadj Malick utilisé burdu ba jàng ko pour mu garanti dënnu imaamul Busayri ca lay keroog bi mu ko jàngee dañ ko yóbbu jabar yàlla moo tax kuy volontaire boo ñëwee topp ci ginnaaw ji ko jàng comme na mu ko doon jàng waaye yéen ñi ci waa wala yéen ñi jàng téere yi am ngeen xel mu leer ni Maodo jënd na lu mu mën a jàng xëy bu fu mu nekk xëy bu moom fu mu nekk jeex na benn nit firnde lii de moom ma nga xay bu ah. yii ah, Oustaz Bachir xay fu mu ne li ci gën a yéeme mooy côté boobu ci Cheikh El Hadj Malick wallaahi dem ba gis koo xam ni li mu bind ci yonent bi doy na nga yëg ni kii bind bi warul nekk ci sahaada te nekkul ci xay nga fexe yóbbu bind bi ci xay déggoo nekk moo ko man ma jàngee ci ñaari côté foofu mu ni benn mooy Maodo yore bi rek. wallaahi yoonu nekkul ci bàyyi ma bind sama bind dem ko la bind concerné ko yonent bi rek da ko jot beneen ki ñaan amul joxala imam Busiri moom la ñu tuddee Sharafuddin cërëm la mësuma gis mukk góor gu terrible comme imam Bousiri insupportable mu dem Bagdad rek proposé leen beneen justice bu bokk la gu amirul mominin ni parce que amirul mominin amirul mominin rek lay protéger contre toute la communauté musulmane kon nag na communauté bi wut justice su boppam nit ñëpp bëgg ci ànd ak moom ñu dàq ko génn ko capital bi mu ànd ak jabar jeeg doom yi yëpp nekk ci désert bi di taxawal ba ñu récupérer ko yóbbu ko charqul ordon mu dem fekk fa projet jàkka yi mu ni mais projet jàkk borom dafay rey ngëm ba noppi tabax jàkk ca kaw fexe ba gëmloo nit ñi lool ñu dàq ko génne ko moom jabar jeeg doom yi ñu toppati désert bi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ndaw si ndaw si di xul rek man xamatuma fu ma jëm te góor gi gémmiñ gi dafa rëy xamatuma lu lekk xale yi am nañu lu mu lekk te fu mu dem wax fa dëgg gu tax nu dàqul léegi nun tàyyi nanu ma bu leen tàyyi dem leen ba fa ngeen baaxe woon ca Madina foofu ngeen tagge woon yonent bi mu ne d'accord ñu dem Madina mu tagg yonent bi ñu wutal ko ci HLM yi mu dëkk fa moom xale yeeg jabar ji te xamul ne HLM yi yahud yee ko moom mu xëy rek dal ci kaw yahud yi ni leen chrétien yee leen gën fuuf ñu génne ko mësuma gis ku mel ni Buusiri mukk muy taxawalu ci désert bi rek mook jabar ji xale yi xale yu jooy nañu def lu ne jabar ji jooy mu lànk rek fu mu dem wax fa dëgg ñu génne ko capital yëpp ñu interdire ko mu xëy rek mi ngi proposé jigéen ñi comme amirul mominin waaw parce que góor ñëpp def nañu échec léegi jigéen ñee fi des di sunu yaakaar dem organiser benn pèlerinage dem ca kër ca Égypte ca fa ñu suul sayyidatuna Nafisa waaw ni ñu tuddee sa mbàjj Nafi waaw affaire ba réussir ba nga xam ni jigéen ñëpp takku ni dañuy nekk amirul mu'minin mu tagg jigéen ji nag ñu ko góor ñëpp def nañu échec parce que amuñu jikko yonent bi yow rek yaa am jikko yonent bi waristi xisaalal Mustafa wa xudumahu wa fadlukuma lawla nubuwatu waxidu mais jigéen ñëpp takku ni dañu bëgg nekk amirul mu'minin mu jox leen raison ñu génne ko waay waay mosuma gis góor gu mel noonu mukk